tey juróom lañu euh, macha allah ñu dajale daje ñëw euh, doon seet si sëriñ bi wax ko li nga xam ne dëgg-dëgg mooy euh, jaaxle Sénégal yëpp ndax fitna bari na ay bakkan ñu ngi rot waaw violence bi bare na daan nañ ko def sax bu ñu amee problème rek walla bu dëkk bi xawee yëngatu ñu ñëw sàkku si ñaan dañ am am nañ yaakaar ci Touba waaw li nga xam ne moo ñu indi nag dëgg-dëgg euh, mun naa ne suñu xol sedd na lool sedd na ci nit ñu terale sedd na ci nit ñu recevoir li gën a seddal suñu xol mooy déglu bi nga xam ne déglu nañ ko ak tontu bi nga xam ne am nañ ko ci sëriñ bi bi nga xamee ne wax nañ ko lii nga xam ne mooy suñu mbébét sëriñ bi nag rafetlu na ko wane ne euh, taxawaayu Serigne Touba ak liggéeyam ak ñaanam ak coono bi mu am yëpp pour jàmm rek am nee na tamit dina def kémtulaay kantam pour jàmm am comme nu mu koy def ñaan dana def ba juboo am dana def ba déggoo am unité am waaw loolu nag dëgg-dëgg mu nekk ay kaddu yoo xam ne kàddu yoo yu yu rafet kàddu yu dal suñu xel euh, vraiment ju ngi jóge Touba di sant yàlla bu baax di sant li xew dañoo tiital di Sénégal yëpp la tiital Sénégal kenn xelam dalul kenn xelam dalul tey te lii lenn ma ñëw ci mën a mën ñu mën di dindi mooy waxtaan du bu ñu gisee justice ni muy doxee bu ñu gisee li nga xam ne aussi mooy force de l'ordre di doxee bu ñu gisee ñi nga xam ne te dañuy wax résistance di doxee bu ñu continuer ci logique boobu kenn du ci gis boppam day day gën a bon donc il faut que logique boobu nga xam ne mooy logique gu xeex logique gu fitna ñu teg ko ci suuf jiital waxtaan fexe ba nga xam ne jàmm dina am te fii nga xam ne moom la ñuy jëm muy euh, élection wu 2024 yi ñu dem fa ci jàmm ñu bëgg bokk bokk am sa lu am solo la parce que tamit sëriñ bi wax nañ ko tamit mu ñaan euh, président bi am yërmande yërmande bàyyi bàyyi ñi nga xam ne jàpp nañ leen moo leen jabootee wax tañ te nañ tamit mu wax kii nga xam ne mooy euh, Sonko ñu gë ànd ak dal ànd ak dal parce que loolu mooy tax ñu am ay conditions yoo xam ne dinañu mën a waxtaan ñëpp boolewante ñu fexewaat tegaat Sénégal ci yoonu boo xam ne mooy yoonu jàmm